rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuy di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen comme ni ngeen ko xamee nag bés bu set rek dañ leen di indil li nga xam ne moom moo tukkee ci yëglekaay yi tey nag di aljuma ah tombeeg le 6 août 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglekaay yi liñ ñu indil ñu dikkaat ak yéen si plateau bi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 6 août 2021 dañuy ñëw ak ñu ci yëglikaay suñu lamb la ni xëy doore ko yëglikaay bi di sunu làmb nag tey ka mu xëy fësal ci xëtam mu mooy ka nga xam ne moo jiite làmb ji ñu naan ko Bira Sène yëglikaay bi nag nee na Bira Sène daal tey ñëw na xëy fëgg la nga xam ne moo di ca taabal ja bu baax a baax a baax la ko waral nag maanaam report yaak reprise su combat yaak yu mel ne ki noonu ak na ñuy def ci wàllum wér yaram gi mel ne ki daal Bira wax na ca yu mel ne ki noona nee na fi mu nekk ni daal soo bëggee dégg-dégg moom maanaam il faut que daal lu mel ni ki rigueur daal di ci am bu baax a baax pour ñëpp ngir lu jëm ci wàllum wér yaram gi biraa moo xëy tey waxee nu mel ni ki noon mel ni ki nag la nga xam ne nii tamit moom moo di promoteur ya boo bëggee dégg-dégg daal convoqué leen moom mel ni kon biraa seen daal maanaam yemut ca loola nga xam ne nii ba moom moo di wàllu nga mu wax yokk na ca leneen loo xam ne nii daal maanaam moo di promoteur ya des na leen woo ngir nag lu jëm ci wàllum date ya ñu jàpp ko yemu ca ñëw na tamit ci 23 gala yoo xam ne daal jàpp na ne fi mu nekk nii daal yes war organiser la ñëw tamit di wax ci lu mel ni ki noona biraa daal tey xëy na tey wax ci lu mel ni ki làmb ji ak lu yaatoo yaatoo yaatoo xam la ne daal galaa yooyu des na set nees koy def ngir nag mbër ya mën a libre waaye loolu lépp daal day fekk rek wallu wér-gu-yaram nga ñu topp ko nan ko war a toppe rigueur am ca ña war a vacciné wu dem vacciné wu tey bira seen daal waxtaan wu yaatoo yaatu séq na ko ak yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb ba tey bu nu continuer ci mbir moomu mel ni ki nag ab colonel boo xam ne daal colonel Aboubacry Aboubacry Samb lan kay wax moom nag colonel la bu dem retraite moom nag dafa xëy sampab laaj di laaj lan moo war a tax ñu dédommagé li nga li nga xam ne moo di promoteur yi lan moo war a tax ñu di leen ndàmp moom daal lii la xëy tey di ko laaj moo tax nag mu nga ci yëglikaay ba ñu wan ñu ko ci xëtam wu njëkk yemu ca moom Abou Bakrin ba tey mu ngay wax ci lu jëm ni ki loola nee na la nga xam ne moom la gouverneur def xëy xëy rek ñu dal di aj làmb ya te nee na waxtaan amut nee na loolu moom la masta gis fenn parce que nee lu mel noonu ak làmb ne mu toll ak la nga xam ne nii moo ca nekk di ca yëngutu nee na décision bu ñu cay jël ak bu mu mën a doon rek warees naa mën a woo acteurs yi ñu toog waxtaane ko door kaa def colonel ba nga xam ne moo dem daal gis booba la am waaye bu ñu continuer ba tey ci lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom la ko naqari rek xëy tey di ko wax muy tafaagee yi la ko naqari nag mooy sorone de vaccination bi nu woote woon bërki démb fa nga xam ne moo doon ca arène nationale na nga xam ne nii ñoom ñooy les VIP de la lutte nan ca ñàkk ñëwee daal moom moo naqari tafaagee yëglikaay bi nee na dafa Gueye mu ngay xam ne moom dafa sax ruus parce que jàpp na ne daal ñooñ moom rusloo nañ ko ndax xalaatoon na ne dinañ leen fa gis ñëw fa teew fa maanaam joxe exemple boo xam ne ni seen rakk yëg ñëpp danañ leen man a roy lool mooy waxe ka nga xam ne nii moo di Tafa Gueye ba tey bu nu continuer ñoom ña nga xam ne nii nag ñoom ñooy les VIP ba tey ñu ngay espérer wala di am yaakaar kani ni seeni combat des na ko maanaam tëggaat maanaam daal reprise combat ya dana amaat yëglekaay ba moo xëy tey wax ko leneen loo xam ne wala keneen koo xam ne ni moom VIP yooya am na ca koo xam ne dëkk na ko ay loxo muy Franc bu parcelle mbooloo digganteem ak Lac de Guiers mu nga xëyaat di ca wax nee na Gaston Mbengue daal wax na ko ne pare na bu fekkente ne loola nag waxi Franc la yemu ca tamit yokk na ca leneen loo xam ne daal laaj nañ ko ndax boobu ba tey ñu ngi lay proposé adversaire mu ne waaw ñu ngi may wax ay adversaire rawatina Gris 2 waaye daal moom la mu gis ne na Lac de Guiers daal la samp am la sampal am dëndam parce que daa dégg ne na Lac de ma sa wax ne daal maanaam moom daan ko ci lamb ji nu ne du yomb te ne na moom jàpp na ne xale la boo xam ne nii daal pare na ngir daan Lac de Guiers numéro 2 fara moom moo xëy tey waxe lu mel noonu ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb bu nu continuer ci yëglikaay yi ba tey dem les arènes kan fay fekk mooy Gris moom ma xam ne moom la Franc tudd léegi Gris 2 moom la ko naqari tey ba mu xëy tey di ko wax ci yëglikaay bi nga xam ne moo di les arènes maanaam VIP yi mu jàpp ne daal boo bëggee dégg dëgg daal protéger wuñu kenn protéger wuñu seen lutteur protéger wuñu kenn xanaa kay seen bopp daal lañ fi nekkal waaye bu loolu moom nee na ñoom maanaam protéger wuñ tey jeune lutteur ëllëg waxi noppi ñoom VIP yi Gris 2 nag di rakki Gris Bordeaux ma jiite mbër yi moom moo waxe lu mel ni ki noonu ne ñeneen ñoo xam ne jàpp na ne respecté wuñu làmb moom moo di état du Sénégal Gris 2 ne na état bi moom joxuñu benn cër wala gëdd waa làmb loolu mooy ay waxam yemu ca ne na Gris Bordeaux ma nga xam ne moo di magam tamit ah ne na respecté ko moom lu war am la parce que itam lu mu wane la leneen loo xam ne wax na ko yemu ca maanaam daal nee na wàllum de Fass yitteelee tamit du lool nee la ko gën a yitteel daal mooy nekk roi des arènes yëglikaay bi loolu daal la xëy tey andil ñu ko ci Gris 2 ci waxtaan xam ne seq na ko ak ñoom ci waxtaan woo xam ne wu yaatoo yaatu la keneen koo xam ne nii moom maanaam rek nekk na roi des arènes ñaari yoon muy bomba de ku ne xam na ne ci wàllum MMA ba nag am na ca combat boo xam ne moom la war a jongante ka nga xam ne moom moo di Jérôme Le Banner yëglikaay bi di ñu xamal ne la vingt cinq septembre lay doon waaye Gaston Mbengue ma nga xam ne tamit da koo tëgg fii ci lambi réew mi maanaam tegalu ko benn condition ne ko bii ngay def wala baa door a mën a dem jongante ji sa MMA maanaam daal da koo bàyyi mu libre defi la mu bëgg def yëglikaay ba tey ñëw dina ko wax keneen koo xam ne bëri naag Bombardier moomu ñetti yoon ba daan ko muy Yaxya Jóob Yékini yëglikaay bi ne nag ginnaaw ba mu sampee la nga xam ne moom moo di faata production di tëgg ay làmb yëglikaay bi na nag Yékini ren moom boo bëggee dégg dëgg la mu génn ci xaalis jot ko fee teg ci ay ay miis bëri na ba yegg ci douze millions yoo xam ne daal yëglikaay bi na Yékini génne na ko ren ci jibaam def ko ci lambi simple ji tegal ko xale ya ñu jongante yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dina wax lu mel ni ki doon keneen koo xam ne tamit lambi da cee wane boppam bu a baax yëglikaay bi di laaj lu ko dal muy jax parce que nag yëglikaay bi daa jàpp ne ren ay galaa xam ne dañ koo annulé ak combat yoo xam ne ci fiasco la mujjee daal yëglikaay bi moo tax tey moom les mu xëy tey samp laaj di laaj ci mbir ka nga xam ne ni moom moo di jax mel ni ki daal bu bëggee dégg dëgg tey yëglekaay yi loolu moo fi ñëwoon ci lu jëm ci wàllum làmb ji. away bon di away attention Jackson jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglekaay yi loolu la ñu xëy tey indi waaye balaa noo sori dañ leen di balu àq bu baax a baax si aljuma ji di leen baal di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm dàqal ñu mbas mi mu dem dàq ko si àddina bi yëpp pour que nit ñi mën a delluwaat ci seen ay activité normale ndax ku ne xam na ne jamono ji ñu nekk nii moom activité yi donte ñu ngi koy dox waaye niñ koy doxee nekkul doxin woo xam ne nii wi gënal doomu aadama yi la ndax ko waral mooy coronavirus bi mooy tonte bi waaye rek ñu jéem ma respecté la nga xam ne moo di mesure barrières yi comme ni ko médecin yi digle maanaam ñi yëngatu ci wàllum wér-gi-yaram euh, tey nag bu ñu ñëwee ci yëglikaay yi yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb xëtam mu njëkk tey Bira moo ca nekk yëglikaay bi nen passe sanitaire report reprise des combats le coup le, ku coup de Bira Sène loolu la yëglikaay bi xëy tey indil ñu ko maanaam muy ay mbir yoo xam ne boo xoolee ni yaa ngi ko gis moom Bira mu ngi noonu hmm, teg bikam di mel ni kuy signé di wax daal ci reprise yeeg la nga xam ne nii moom moo di promoteur yi bu affaire yi date yi ñu war a joxe waat ak journée yi fi des ak yu mel ni que noonu yooyu yëpp Bira wax na ci muy loo xam ne buñ ko xoolee maanaam ça veut que ah kon mën nañoo am yaakaar ci kani saison bi ak lu mën a xew rek dinañu ut ay solution yu ñu man def pour mu ubbiwaat la koy indi nag bokk na ci rigueur ne nag il fallait que ñu indi ko ci wàllum paju mi waaw mooy maanaam ñàkku gi ak yu mel ni ki noonu pour que làmb ji mën a ubbiwaat et puis respecter mesures barrières loolu mooy xëy ki nga xam ne ni moom moo di Bira Sène tamit mbër yi il fallait que nga xam dañu ay combat ñu fexe libérer leen pour que ñu mën a libre loolu nag li koy def mooy rek xam naa ne il fallait que li war a am ci paju meeg ñàkku yi am ba nga xam ne état bi dina mën a joxaat euh, ndigal ñi nga xam ne ñoom ñoo yore làmb ji ñu mën a ubbiwaat pour que làmb ji mën a démarrer waat combat yi fi desoon ñu mën ko jukki ñu xoole ba nuy def loolu mooy waxi Birassène muy lu am am solo keneen koo xam ne tamit ab colonel bu dem retraite la ñu koy wax abu Aboubacrine Samb moom nag la mu xëy di laaj Aboubacrine yéen a ngi koy gis noonu ne na li muy laaj mooy lan mu war a tax ñuy dédommagé wàll promoteur yi moom boobu laaj la xëy gis ngeen ko noonu mu ngi sol ab felt la xaw ma ban mbaxana daal la sol mu ngi ne du sol ab mbaxanaam moom ab moom Aboubacrine Samb ne na lan moo war a tax ñuy dédommagé promoteur yi loolu da lay laaj Ah, promoteur yi nag li war tax bu ñu di leen dédommager ay sénégalais lañ pour man di ay citoyen jël seen ay millions jox ko ay mbër yaa ngi dégg ay at mënuñoo fexe ba tëgg làmb jooj te làmb jooj loolu ñuy def emploi la ci réew mi kon defe naa ne promoteurs yi mësuñoo laaj état xaalis ñoom ñoo mës di jël seen xaalis di ko dugal ci làmb di uti bu ñu perte muñ bu ñu gañee toog waaye tey dafa fekk ne nag bi ñu waxee waxu dédommage promoteur ça veut dire que moo ñëw ci àddina bi fekk leen ñu jël ay millions joxe ko xëy na loolu moo tax ñu di ko wax te defe naa xel mën na ko nangu parce que c'est des sénégalais parce que ñoo xam ne bu fekkente ne dañuy wax jox nañ leen ay ay ndàmpaay te ci ci pandémie bi defal nañ ko yeneen secteur pourquoi promoteurs yi waruñu leen ko mën parce que ñoom itam def nañ pourquoi waruñu ko dédommager leen pour a jàppale mbër yi nga xam jox na avance boobu ba tey mu nekkum coono loolu mooy li nga xam ne nii Euh, Aboubacar wax na ko yemu ca ñëw na ci ni gouverneur xëy xëy jël ñu jël décision dañuy aj làmb yi moom daa jàpp ne loolu même bu fekkee lu war a la des ko war a waxtaane ba tey Aboubacar mooy wax et wax na dëgg waxtaan balde mooy jur lépp waxtaan ba pare doo jël décision mooy gën a wóor xëy xëy rek jël décision loolu moom dañ ciy d'accord ak moom keneen koo xam ne nii moom gis nañ ko ci xëtu yëglekaay bi bu ngeen ko xoolee mooy tafaa gi di ngeen gis Gris Bordeaux gis Balla Gaye noonu gis Modou Lo Tapha nag nee na dafa am lu ko naqari loolu gàcce la am nee li ko metti mooy journée de vaccination bi ñu woote woon bërki démb gisuñu fa VIP yi gis ngeen Tapha Gueye ngi noonu ci biir VIP yi di ko wax nee na loolu moo ko rusloo Tapha Gueye gis-gis boobu la am ci loolu gis ngeen ko noonu defe naa nag ah loolu tamit ñu bëri bëri bëri bari bëri bëggoon nañ leen faa gis te itam defe naa ne donte def nañu ay vidéo sensibiliser mais li gënoon jekk te doon gën a defar image bi mooy ginnaaw vidéo yi ñu toppoon lañu def muy ay vidéo ñëw teew même bu ñu vacciné ñu gis leen ci ay image dafay rafet ndax ci liñ ci ci li ñu xam mooy Bombardier gis nañ ko mu vacciné wu lu jiitu loolu Balla gay 2 gis nañ ko mu vacciné wu mais du tere mënoon nañoo ñëw ak ñeneen ak ñeneen le roi des arènes Modou Lo ñoom ñëpp mënoon nañ fa teewaa gën a def sensibilisation bi pour gën a may làmb doole parce que làmb tamit pour ñu may ko doole il fale que yenn bés yi ñu di ko bañ di raté il fallait que acteurs yi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ëpp doole bu ma dee wax doole mooy dañ ci am cër parce que tey les VIP dañu am cër ci làmb parce que lu ñu liggéey ba méditoo ko ba jot ko la kon defe naa loolu dafay ngay wax tamit wax dëgg yàlla xel nangu na ko waroon nañ leen faa mën a gis ñu ñëw teew beneen xale boo xam ne VIP yooyu moom am na kum ci topp muy franc Lac de Guiers la ci topp Franc nag ne na Gaston Mbengue m'avait dit ah am na lu ko Gaston waxoon bu fekkente ne daal mbir yi ah pare am na xaw ma nag kuy pare xaw ma la ngay pare ngir bëreeg moom wala lan mooy xew Franc daal a ngi noonu moog lak Gaston tam a ngi noonu waaye yaakaar naa bu ñu gisee affiche photo boobu di ngeen leen gis gis ngeen li Franc wax yaa ngi dégg digganteem mag Lac nag fii ci micro Equivox TV ba mu daanee Tyson 2 ci bis ba ci guddi gi balaa sumeeku lañ ko fekk këram mu ne pare na pour bëre Lac de Guiers Eumeu Sène wax jooju nag daa mel ni ba tey moom la Franc di topp Gaston Mbengue it di promoteur bu dee daa bëgg combat ba itam ah am na droit dox ko waaye nag la ma waxoon laay am na fi benn làmb bu ma fi waxoon te la ma euh, te wax jooju loolu laay waxaat tey làmbi Franc ak euh, ki nga xam ne moom mooy Lac de Guiers 2 bis buy am lay tax mu am ci Lac de lay jóge moo koy yombal ndax nag la tax moom mooy bu fekkente ne ci lutte avec frappe la niveau ba mu yegg di ca jongante ah palmarèsam xaalis ba muy fayeeku Franc dese na ko mu yegg foofa donte nag mu nga cee yoon wa kon combat bi tey tey tey Franc boo ko newoon yàgg Lac de Guiers xam naa ne discussion ba du yàgg waaye nag discussion ba buy am buy gaaw wala mu yéex ci Lac de Guiers lay doon ndax moo yor cëggal gu yam ndax nag ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax fi ngay toogee olof moom mu wax loolu moom Franc yemu ci wax na ci digganteem ak Gris 2 hmm? tamit bi mu daanee ba tey ñu ngi koy wax waxu Gris 2 ak nangam waaye moom daal nee na Lac de Guiers daal la gis moom Franc daal loolu mooy li nga xam ne nii moom moo di ay waxam tey ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb may wax ne nag moom bon noonu la garab la ci kaw lay fekkante et puis olof ne du mas dabante la waaw les VIP tamit gis ngeen Gaston Mbengue nga ngi ngeen gis ko mu taxaw ci diggante Bombardier ak Balla Gaye photo bi bi ngeen ko gisee daaw léegi moom at daaw ba ñuy waaj màggal Touba woon ba mu leen di ba muy fisale seen combat muy Bombardier ak Balla Gaye ca këram Maris mooy photo boobu ngeen gis mu yëglikaay bi ñu xam ne nag ah VIP ak ñu ngi espérer daal ngir combat yi ñu rep maanaam ñu reprendre at ko maanaam ñu tëggaat làmb yi loolu dina defi naa moom la ñëpp di espérer parce que VIP war nañoo bëre xale yi nga xam ne ay mbër yu ndaw lañ te di rêver mel ni Balla wala Bombardier ji bëgg nañoo bëre te defe naa ne kon bu ñu bu reprise amee rek dina jural ñëpp njariñ sans compter waa Lutte avec Euh, bi nga xam ne ni ñoom ñooy ñoom def lit af lit bi nga xam ne ni àndul ak dóor di moins maa ngi jéglu mooy lit sans frappe bi ñun tamit ñu ngay xaar kon ñëpp a xaar waaw bu ñu continuer ñëw ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di les arènes Gris lañ fa gis tey ñu daral ko waxtaan wu yaatoo yaatoo yaatu Gris nag gis ngeen ko noonu la wax moom daa jàpp ne ñi nga xam ne ñoom ñooy les VIP ne ca kaw làmb ja Gris 2 ne na ah bu dee dañ fee nekk itam nekk luñ fi jeunes lutteurs yi ñoom ñoom seen bopp lañ leen fi bàyyi du samay wax nag Gris moo ko wax gis ngeen photo bi noonu da ki Gris Bordeaux ma jiite lam ma jiite mbër yi moom moo xamle ne daal gars yi seen bopp lañ fi nekkal yemu ca ne na état bi amul respect bu mu jox làmba ba tey Gris 2 moom moo wax loolu yaa ngi dégg bu ma dellusiwaatee nag ci li mu wax ne mbër yu mag yi protéger wuñu jeunes lutteurs yi ah loolu bon gis-gisam nit ku ne am nga sa gis ak la mu yëg ndax moom jeune lutteur la xale la te ci làmb la nekk am na yeneen jeune lutteur yu muy bokkal di dundandoo kon defe naa lii nag wax jii mu ngi répété wu di am di amaat bari na mbër yu koy wax yaa ngi dégg surtout mbër yi nga xam ne moom lañ tuddee les jeunes lutteurs moo tax nag may wax VIP xaw ma lii ñee di wax am na xaw ma amul waaye lu mu ci mën a doon daal ñoom ñëpp li war mooy nañu toog bokkaat benn taabal waxtaan ñu défendre intérêt général loolu moom dafay am solo ndax intérêt général défendre ko dafay ëpp doole des fois intérêt personnel yaa ngi dégg ndax intérêt personnel moom mm, mooy sa bopp kese te loolu itam du gën rawatina nag lu mel ni kuréel wala association wala mbooloo ku cay wax rek war ngay wax ci luy défendre mbooloo mi wala lu koy tax dox état bi tamit daa jàpp ne respecté wuñu làmb wax na ko waaw loolu moom bu amee defe naa ne def nañ lu ñu warul a def état du Sénégal bu fekkente ne wegut waa làmb pour man la mu def waru kaa def parce que li tax mooy làmb suñu sport national la fii la dëkk jëggaani ko sunu yëfi bopp la képp ku jiite réew mi tamit maanaam nit ku ñuul nga ab sénégalais nga ah ci réew mi nga soqi koo say maam ba ci say maamaat kon defe naa te euh, loo gën a dem ci ginnaaw rek gis làmb fa mu ànd ak mi muy suñu cosaan kon ku fi ne jiite réew mi ak ndomb tànk boo war a mën a yor war nga mën a jox waa làmb seen gëdd jox leen seen cër yaa ngi dégg ñàkk leen respecté moom du lu wóor waaw Gris Bordeaux tamit wax na ci moom moom Gris doon am na mérite waaw waaw ku ñu war a jox cër la ndax am na mérite moom ay waxam la ba tey Yékini mi nga xam ne wala boog bala may dem ci Yékini sax Bombardier gis ngeen ko ku ne xam ne le cinq septembre bii nu jëm mook Jérôme la baneer war na ñoo daje ci wàllum MMA bi mel ni ki nag promoteur bi ku tëggal làmb fi Sénégal muy Gaston Mbengue yëglikaay mu ngi ñu xamal ne Gaston Mbengue daal bombar Bombardier benn condition maanaam bàyyi na ko mu libre kon ça veut dire que indi lu koy jafe-jafe ci jonganteem boobu ndax mënoon ah, moo tax gis nga ànd comparaison da ciy am comme kii athlète la waroon nañ la bëreel ba ñu la woon bëreel yàlla indim ndok nga nangu ko mu amaat feneen contrat bitim réew à l'étranger war ko jongante ji nga bàyyi ko mu dem jongante ji ko loolu rafet la defe naa ne loolu lu ama am solo la ba tey moom bo ba tey ci yëglikaay boobu mu nga xam ne moo mooy les arènes Yaxya Jóob Yékini gis ngeen ko fa moom tamit yëglikaay bi ñëw na ci Yaxya Jóob Yékini ak li nga xam ne jot na koo génne ren ci wàllum lit simple bi mu toll ci 12 millions yoo xam ne jot na koo génne teg ko muy mise muy koo xam ne tamit vraiment am na mérite Yaxya Jóob parce que li tax mooy Yaxya am mérite mooy dafa bàyyi bëre ba bàyyi bëre ñëw samp structure bu ñuy wax Faata production yaa ngi dégg Faata production bi mu ko sampee di tëgg ay làmb di teg ay mise su 3 millions ay 5 di wër raison yi di wër département yi yaa ngi dégg di tëgg ay làmb gis nañ ko ci ay dëkk yu baree baree bari ay Joal ay Ñaaxar ay Fune di fa dem di génne ay xaal di tegal xale yi ñuy bëree defe naa loolu tam lu ama am solo la kon yi Jóob nii dañ ko naan moom tamit am na mérite di ko wax jaaraama maanaam ah ñëwut ci làmb làmb defar ko rek mu fàttewaat waa làmb parce que tamit lii muy def nii defe naan bokk na ci lu ama am solo ndax 12 millions yii nga xam ne moom la jot investir ci lit sans frappe bi ay mbër ko jël te biñ ko jëlee te du mel na mbër ko jël ay mbër ku ci ne am na loo ci yóbbu sa kër te ku ci ne ba nga ci yóbbu sa kër faj nga ci ay soxla kon Yaxya Jóob Yékini jaaraama lañ koy wax parce que tamit comme lu may wax rek moom exemple la ci làmb parce que defe naa durant carrière li mu wane en tant que sportif professionnalisme danga koy gis si moom calme néew ay wax respecté lu muy def loolu bokk na ci li ko protéger ba bi muy daanu ci làmb ñépp dañ ne woon mënatul daanu yaa ngi dégg waaye làmb feeg bàyyeegoo ah li olof naan eh, àdduna ak weeru koor a yem rek feeg dog jotul jubu weesagul làmb itam noonu la demee feeg bàyyeegoo xam ne lu ne mën naa ñëw moo tax bi mu bi mu demee ba ñëpp ne mënatul daanu nag 2012 la daje xale woo xam ne yàgg na ko topp ah muy Balla Gaye 2 mu daan ko mu jógewaat ca amaat beneen defet ci digganteem ak Lac de Guiers waaye loolu wàññiwul ci méritam dara parce que li tax mooy ña ko daan ay rakkam lañu wala ay rakki rakkaatam lañu te itam fañ ko daane c'est normal parce que dañoo liggéey ba fekk dab si ko daan ko loolu mooy làmb loolu moo fi ñëwoon tey ci yëglikaay di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm di wax que ne ajuma ji yal na yàlla def lépp lu ñu ci ñaan ci jàkka yeeg jumaa yi rek yal na ko yàlla nangu te bu nangoo yàlla na tombeeg mu jële fi coronavirus bi di wax ne tamit ku ne xam ne ne le 11 août bi nu ne euh, ku tedd ke borom jàmm ji Serigne Mountakha Mbacké woote na sa journée des xas journée des xasaayit ca Touba ñaax képp ko xam ne ab taalibe nga rek yaa ngi dégg ak foo man ndax defe naa journée de xasaayit moom bu ñu ko waxee xasaayit yi Sëriñ Tuubaa yi nag ginul alxuraan ak sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon defe naa loolu fu ñu koy jànge rek waras na faa am yaakaar war faa am euh, waras na fa am yaakaar daal yaakaar dañ ci am nag yàlla na yàlla def journée boobu nekk journée bi nga xam ne tamit le 11 août boobu yàlla na yàlla def lu ñu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu te bu nangoo lépp lu ñu jaaxal wala mu tiital ñu yàlla jële ko fi ci barke xasida yooyu Euh, sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér waaye noonu lañ koy ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour ma sa Tiwaawoon moom itam yàlla na fi yàgg lool te wér di dem ba Medina Baye lew na ah euh, fa nga xam ne moo di cene ba Njaasaan ñoom ñëpp duñu fàtte bépp benn kilifa diine dem tamit ci euh, classe bi jàngu bi tamit di leen ziar di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di wax que ni réew mi moom réewum jàmm la nañu am yaakaar rek di julli di ñaan di muslu te yeneen te jàmm te yitam di saraxe du mën a ñàkk parce que loolu moo ko jullita ànd waaye tam raxas xol yi tàppe xol yi comme na ko dabaax waxee woon te dam ba mu ko waxee doomam koo xam ne doom la si moom di sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al waxaatoon na ko fi noonu réew mi nañ ko sang te ba mu koy wax yàgg na na yàgg naa koy wax dégluwuñu ma te buñ ko sangul dina sang boppam ak deret wala ay dee wax ja nag daa mel ni bu fekkente ne am na nu mu xel tuuti daa mel ni la mu waxoon mu ngi feeñ parce que li tax mooy nee na sang gan ak du sangu lenn lu dul sangu yéeneente jàmm raxas xol yi loolu la Serigne Cheikh Tidiane Sy Al waxum parce que nee na bu ñu ko deful leneen dina am te lii nuy gis fan yi jaaxal nañu jummal nañu kon li laay warasul nañu yéeneente jàmm te rafetal kàddu yi te bàyyi yàqante bi loolu amul sens non non non amul benn njariñ nañu yéeneente jàmm di ko waxante nit ki war nga mën a xam ci moom lu négatif sax te doo toog di ko wilipande jaru ko amul njariñ li gën mooy bu ngeen ko seqee nga toog ak moom waxtaan ak moom na ko Balde ah, gis naa nga def lii kat gënul Balde xool toog tooginam parce que gor kenn du ko yedd ci pénc mais ci broq lañ ko yedd di jégalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax que ni ñu ngi jox ñëpp rendez-vous beneen yoon ak Equivox TV ak Babacar du mën a ñàkk di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm Balde di la kontaan yow mi nekkoon ci caméra bi ak euh, sa euh, boobu nu mu tuddati Abdou ok Habib naga Habib Diouf.